dafa am ñu fi problème problème bi des fictifs ils ont été épinglés par un rapport dañ leen épinglé par rapport urbanisme ba nga xamante dafa wane ne autorités yi fi nekkoon si mairie bi commune de Sangalkam liñ fa def lépp lotissement yi def muy poste beex lotissement fictif la kenn yëgul xamuñu ba loolu am décret ba nga yebal ñu pour ñu dem liguey liguey bi ba ñu commencé ñu jël mandat famille bi yépp Cheikh encore une fois Cheikh Faye du promoteur doon na la comme man mais lañ mu dox si famille bi taxawal famille bi doxé ko nak ni ko pour pour état régler problème sénégalais parce que état mo bëgg ñu régler problème problèmes yi euh, nous lançons un appel solennel. ñi nga xamante ni dañu taxaw ñu xamal leen lu ñu xamul ah nañu jegeñ famille bi xam moo gën way wuy dëpp gaal na kenn du ko way si tefes ndax nit dafa da ngay am sutura biir am sutura biti ba mu doonee ba tey xàllu jula bi ku moomul 2008 ba ba léegi nga taxaw si léegi sa alal façon bu nekk ñu galgal la ko ba yàlla dogal ñu tenir réunion bi mu mujjee tenir ak le préfet Euh, si euh, arrondissement bu Sangalkam ñu arrêté def enquête arrêté def def rapport rapport actuellement il est avec le préfet du département de Rufisque rek avant fi ñuy tok di xaar ñun ñu tok di xaar ñi nga préfet mais c'est inadmissible donc nous ñu euh, que ñi nga xamante ne taxaw si euh, devant la population devant adduna di xas di ŋàññ famille bi famille bee toog ni seen borom alal jee toog nii te ay këyitu leer lañ yor li ci laxasu mooy dama wax naa leen ne dañu jaay ñoom dañu jaay coopérative yi ay poste ak euh, euh, dem dikk ak gandour et cetera dañ leen jaay te mënu amuñu fu ñu leen installé léegi nag ñoo ñuy jaay attribué su sosu ñu ñëw nag didil jële leen fa encore une fois amul benn benn benn benn sommation ba nga xamante ne génnewul te jot ñoom ñëpp ñu ngi leen nañ leen ils ont été sommés et convoqués par la gendarmerie d'Escorche d'Escorche moom gàcce ngaalaama parce que ñu ngi def seen liggéey correctement ci zone bi dëkk bi nag dafa am yoon te administration euh, foncière dafa am nu mu tëddee pour nga am këyit dafa am nu muy tëddee mais doo ne man maire la rek damay ñëw rek xàll àll bi di jaay fii nak Cap Vert nag dëkkab lébu la fii li fi ne ku si nekk da nga am terroir ñun demuñu ganjol demuñu Kajoor dañu demuñu Bawol sunu mam xëri mo jëk nek laman bu jigéen ci Cap Vert moko mom moom ñoo ko doon na laman gi man mi mako don fofu nak ku ku ku fa tek tank di nga ma fa fek et je lance un appel solennel au président de la République dossier bi mo xam nako ndax mu nga bureau